waxtaan wi néeg waxtaan wu am solo la tukkee ci suñu xarit bu ba yàlla baaxal muy suñu dëkkandoo ñu naan ko sëñ Maxtaar Seck bu Mbooro jarul sax ñuy guddal kàddu gi dañ ko koy jébbal rek mu commencé waxtaan wi dañu ko dégguloo ñun ñëpp. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. di ko ñaanal sunu bopp tey waxtaan wi noo ko defee fii ci mbay mbay fii ci kër Ousmane Ba di sunu xarit di sunu wëllëre di sunu bokk ci sunuy nit ñu nite ñi ah li koy sabab nag mooy lu yàlla na ma war na lu mu yeggale daa jot lu jotiti yomb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 Moxtaar Seck bu nekk Mboro mooy waxtaan ak yéen ndax damay wax ni àddina ku mu neex fi yow ba nga juddoo yàggul barke ku mu soppi si jikko danga nga caa juddoowul alal ku mu soppi saw doxin ba nga amee yàggul gor fi war a juddu juddu nag juddoo fi mu war a juddoo juddoo ci ni mu war a juddoo màgg takku tekki foo mën a dëkk ñi daa sa bàyyi nuyu si la loo jige jige say bokk nag sa takku woo ku takk teggi la waaye loo sori sori say bokk te takku ku ca takk tekki seeg yow jamono joo gis nag ji koy jamaale la yor waaye ku yàlla ndiiku da nga àggali kon jamono ji neexul ëpp naa wax sama jamono neexul la ñu war a wax ndax àddinam néeg la ku ci tàbbi tëju di nga tijji ñu gis la wala ñu ubbi ko yër la jamono nag mooy dëkk di yàq loo ko giseel ba di ko wax xamal na lu ko ëpp mbaa mu déggal ko da ko caaba kon mbooloo mooy tàbbi war ngaa xam la leen boole lan la bari mbooloo bu doon taxa a tekki dara bu ñu tànn yilimaan dem ca mbëri làmb ya te ndaanaan ak boor ak chef de quartier ak yilimaan akum tudd tàbbi ci ab dëkk am leen te yomb na maa leen judduloo jafe kon daanaan dul foo si rendi ak mbëtt mu dul tegg yoon ku ci déggul fi la dëkkan dina yàgg dégg na yarami fanaane ndaanaan day foo si rendi wu te yàlla du yónni ñett yàlla du yónni ko soxor yàlla du yónni ku ñaaw jikko yàlla du yónni ku amuli bokk ndax li tax ndawal yàlla jëmu jotee fees dell la ko baax walla bon dina ko nuyu waaye du am place kon yàlla du yónni ko soxor ndawal yàlla ku mu gis da lay jàmm te du tàbbi ci lu yoonam nekkul kon yàlla du yónni ku ñaw jikko ndawal yàlla ko sax ci yàlla santaane mbokkam nga ku bàyyi lu yàlla tere mbokkam nga kon yàlla du yónni koo lu bokk tayit nag soxor ak kiñaan ak ñàkk a doylu fàtte ne di nga dee doo nga ko yóbbi nit te doom bu gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du ca àgg kon a lëngoo mat ne xarit la waaye koo bàyyi mu wéy daga témbe caaxaan la ku bàyyi garab garab bala doomu aadama joo gis nag saa yoo ñëwee taxaw bëstul nga waaye ku àdduñu xam sa poids moo tax ndaw loo fekk mu yaru te bañ ko yar fekke woo ko loo ko ëpp ëpp ay at deeba teey ndax damay wax ni boo nee daani ñu ni déglu leen raw ngay buum ba teg kaddu goo ca doole di nga yeew sa bopp mbaa nga yeew say bañ kon man barmool bu nekk mën naa rëcc ñu def ko delloo ci ba mu des barmoolub làmmiñ te koy waddoo làmmiñ soo noppee rafle accident ci machine lañu ko séenoo waaye ci làmmiñ la yéese ndax làmmiñ bu waxee ba def accident ci biir kàddu ga jëmm jay suux te it boo nee daane ñu ne teg raw ngay buum ba teg kàddu go ca doole di nga yeew sa bopp mbaa nga yeew say bañ ñàkk a wax dëgg ci mbooloo ci ku ñuy déglu ku ne ñett la ko yóbbe boo dee wax ngir bëgg sa darajaay bopp doo wax dëgg boo dee wax ngir bëgg darajaay ñi ngay waxal doo wax dëgg boo dee wax ngir di ci seen lu ñu lay jox doo wax dëgg doomi gor su ko jantum nattu tiimee la wubbi néegu muñ te dugg ca te xam ne yàllay séddale wërsëgu àddina buur la ku sa numéro génn nga jot ci sa wërsëg nag daañu la jéppi ndax daaw jàll na noo ngi ci ren te wërsëgu déwén yàlla du ko indi ren wali yób borom wërsëg na ku ñu sopp soppi la sama yaay liggéey na jërul wax ku sa ndey liggéey ku la gis xam ko saaf sëriñ gërëm na ma jër la wax ku saf sëriñ gërëm ku la gis xam ko liggéeyu ndey marchandise la ku réglé perte sa yaay ko lekk lu la waaye rawee tamit liggéeyu ndey bu ko jéematee jot wees na borom yaay ju baax ko rawul bu muy gàcce yow ci sa bopp korom borom ndey ju baax talaatam gàcce dina ko tiim waaye du ko dal ndax njàmbaar su doon mayee wërsëg réew moo dem làppatoo yaa koy ëppale waaye foo dajeg ponkal mu yenu saakub ceeb soo ko ñimee ne ko ana borom ki ko jënd du ko yenu jàmbaar ji ndey jël liggéeyul nag koy gol ak kër lay yor gol ak kër dañuy daji gétt ci diggët bi yeew ko ci ndigg li mu dëkk yóotu te du joti mukk jàmbaar ju nday jël liggéeyul du tàggu ku laxasaay bu dégg bëccëg waaye bu jaaxlee ki dul tàggu mu booma koy dimbali ndax liggéeyu nday mbind mu ñu la doomay gontu maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko ngërëmal way jur gàllaaj gu dul toj la yàlla ku mu naru tafay du la liggéeyloo kon ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ña gën bakkan mbaam waaye ku ko taa wàcc mu ngeetu la ku jàpp sax ruu jënde dina kese bu la sukkuraat nu yoo nga perte ku def sa bakkan yilimaan mu tàbbal ci jàkka joo bëggul woon a jullee kon ñu baax suñu yeboo juboo ñu bon leen bëgg gàcceeg penc nag yett a koy yóbbee as gor waxtaana ko dof te déggal ko ak diisoo kuy war ak lépp alali jàmbur foyee ko ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yàqulub bokk waay fu bokk yàqu alal fekke na ko ay war yàqulub ànd waaye fu ànd yàqoy war fekke na ko kon ngor la ku gor la toolak sa tool toogal bu lu ngoo ci ku la ko génne lànkal ci toolub jàmbur la lay jëme te boo dugg ci toolu jàmbur te neexul boroom werante lay indi te werante jëf ju ñaaw lay taawloo jëf ci ñaaw day yàqu bokk di yàqu ànd te it dañ ne ku iñaane say dono saw deewin ñaaw waaye ko iñaane say dono sa mujjee ñaaw ndax sekkare akob sekk ak baatin ci néegub xam ba ca la ñuy dëkk baatin yàlla bu ko xisee dugal ci dënn ba kaste ko ca fit wa ko war a may nettali ko yàlla du ko ca boole baatin soo ko nëbbee mu feeñal la waaye soo ko weeree mu nëbb la kon àddina damay wax ni àddina dafa laaj yett te yett yooyu lenn lu ci nekk luñ luñ ci jéemul lenn kanam la jëm ñàkk gu boroom nu ngi wut liggéey kanam la jëm jàngoro ju boroom nu ngi wut faj kanam la jëm ñàkk xam te nanguwu laa laaj kanam la jëm as yi ci àddina yaari asa ci am solo jeneen as jum amul solo as tafur laa as gor as ndox feeñal na sobe waaye sétalu ko as xam-xam bu borom toogul noppiwul dina feeñalu xamadeem te du ko foog werante bu tàbbee ci pénc ñeent ko fa indi ku ñu yarul jàngaluñu ko kiñ jàngal te yareesu ko boroom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a feeñ ak ku yaroo ci daara ju amul daa daara ju amul daa mënees na ca génnaale ay pexe waaye kenn du ca génne ak wilaaya kon jaamu yàlla ak nu ngoo liggéey ku def sa bopp ku bàyyi sa bopp àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala koo bëgg a xañ wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci yóbbu fu ñu koy nawee boo ñàkkee fayda duuti yokk wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci ëpp si say bokk te doo leen ci dimbali su bokk nga yàqoo yaa ko jiite kon wërsëg jërul du mooy say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi barsàq sàq tuddul bar sàq ber sam sàq la kenn ku nekk da nga yegg xit sam sàq yor sa loxo loo ca fekk yaa ko liggéey juboo ba juboo jeexit jubóog fi jëf ci baax a ci gën keneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fu ñu la tëral mu tëdd fa te dama ni àddina lu la ci xañ jàmm ba teelaa nelaw armeel yoo romb ko lu ko ëppalee nga ci ndax damay wax ni jongama ku mu tax a ñaaw ci kaw suuf loo yàgg-yàgg ci kaw suuf di nga dee jongama rooti ñu sange la ko dees na la suul ba mu amee at jongama judd sa ginnaaw kon jëru ko alali àddina ku mu tax a ñaaw da dem ba hôpital fekk fa boroomi carte grise ak i étage ñu jox ko digg kaasi naan ko tëkku kon jëru ko boroom wërsëg wuy fan ak ñett lay àndal jongama ju amul kilifa texet mu nangu wutal liggéey doomi sëriñ ju xamul boppam ko yaara koy delloo ci bokkam jeexal ak wopp moo tax ñett war nañoo mooy ñett jongama ju nekk ci dëkk fasul yéene am jëkkër te lu xew mu bëgg caa jëkk am ku am lislaam war laa moyu borom wërsëg bu nekk cib dëkk te du dimbali kenn ku des gor war laa moyu koo xam ne askan nga bokk kenn mus caa moomu dëkk bu ñu la defee buur kuy baadoo war laa moyu ndax jongamaa ku dal yem jàppal la ma lay fajal waaye bul bi ñi te bari na ku dóorul àddina te danga yurul yet wa te it nit kenn ku nekk la konté lay kontar kam ci yow soxlaa lay suxlu kon sunu kër gee ka neex ku ñu ngàbbalu kon la ma koy wax foo fekkuy xeebub dépasse da koo sàkkul te damay wax nit dara jaaku loos bu doon mayem manto kon gëléem du tëdd biti te ngoro ñeent la kër ñeent jeeg a fay wàcc doom ñett la ngoro sa mbokkum ndey wala sa mbokkum bàyyi wala dëkk ji yàgg ju la jukkoom neex mbaa ku ay bokkam nga të say bokk loo ca fekk bokk ca loo ca dal nga muñ kërit ñeenti jeega cay wàcc jabari tool jabari jilo jabari seetu jabari sën jigéen bu yore ji koy tool tool bu yaatoo te nangu boroom du fa gëj te bu ñëwee kontaan mooy jeeg bi nga yor ci kër gi di aw fi ko neex muy aw fi la neex su awatul fi ko neex du aw fi la neex kooku njaboot gu jigéen la ko yàllay jox bu ñuy siyi ba caat ma des ca ma topp ca xel ma du nekk fi caat mi nekkan xel ma du ne it fa mu doon siyee ndax da doon fayantoo dong jigéen bu yoree ji koy seet lu mu yàgg-yàgg ci kër dinaa ci seen kër gi ndax moom day seet si rek te ku yàgg seet gis te gis di dem jigéen bu yore jikkoy sën sën du tukki du toxu te loo ko saf mu nangu la mu yàgg yàgg ci kër moo koy mujje mbaa doomam a koy mujje moo tax may wax ni jigéen ju baax boo ko takkee ba andi ko sa kër la mu la ameel la lay jëkk a sàmmal ba kenn du ca dem ko dul yow mu door laa sàmmal la nga xam door laa sàmmal sa buntu kër ba say ba say xarit ak say bokk sabara ñëw sa kër waaye jigéen ju bon say xarit la lay jëkk a xañ ba ñu bàyyi la mu door laa xañ say bokk door a wëlbatiku nag gemb dajeeg yow moo tax grand place boo dem ci dëkk ka fa yées jabar moo fay jëkk moo fay mujj tarambaaj bu politique am toj ak pànk mu ñu jekku ak dof bu tane ñoo yem nañuy xoole dof du wér rab yaay jël conseil waaye dof du wér loo man man faj dof bàyyi ca na muy xoole kon doomu aadama joosin muy dem ñetti raxasoo ngi ci moom yoo xam ne bu ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja nit ki li ko sos li ci bët mën a gis fu mu la laal nga raxas ko nit ki fi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxas ko nit ki bi ruugi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxas ko ñu traxasu yooyu ku ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja teyit ku ñu ne mat nga dañu lay jay ku daray metti matoo yàlla moo bind mat téye na ko joxu ko kenn ku daray metti matoo te koo yaakaar ku ne yettam wump na ko guddi ga ma sosoo wump na ko ni aw yaramam di màgge wump na ko piis ba mu sol machine ba ko ràbb wump na ko kon àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala ko bëgg a xañ te lislaam am na ñeenti góom yu kenn fajagul kay moqar ci pon ni ko wëllum seex tani ko ci lislaam bi laa bokk kay naan sàngara ba màndi daanu ca mbedd ya tañ ni ko ci lislaam bi nga bokk ak ci dul julli du woor du natt asaka du natt muurum koor tañ ni ko ci lislaam bi nga bokk ak këleen lëng direeta naan leen noo bokk tariixa ñeenti góom yooyu kenn fajagu ko kon cari garab war na ñaanal taatu garab jàmm ndax leew matt bu ko see dugg ci waañ su yeboo muy maslaakub dóom ndax sayu matt bu xamoon fa mujj bu rombeeb seen sukkal ko kon ki juddoo ci dëkk dem bay yub làmb te xamoo kuy sa baay xeebu sant waru la askan woo dem góor guñ la ni moo ca dàq fecc boo amee soxla bul ku ko wax booy dinkaane teggi ko ndax jigéen ñetti doom lay jur doomi bopp lal doomi digg lal doomi taatu per doomi bopp lal baayam day làmm ndeyam daj ko li mu ko sant mu nangu bu ca doom sosoo dutu tàkku tiraanga doomi digg lal baay beeg ndey ji dañuy bëri ba ci digg lal bi baayam ëpp doole ndeyam bu ca doom sosoo bu nungoo liggéey am bu nunguuta liggéey du am dara doomi taatu per baay beeg ndey ji dañuy bari ba ca taatu per ma bàyyim ëpp doole ndeyam sës ko ca per ma bu ca doom sosoo bu juddoo per bu xar lay doon lu ko fecc mayul du ko am su màggatee rangoy mbus yelwaane kon ak jeelu mbaan soo déggee mu naa njool mu ndaw mi nii nga dikke wax na dëgg noonu la dikke fenul la ndey ja nekk woon ak baay ba lay nettali te yëgu ko ndax ñi koy tàccu ñëpp nawleem lañu waaye nag moo war a fecc ndax ndeyam a ko liggéey moo tax mu naa njool mu ndaw mi nii nga dikkee wax na dëgg noonu la dikkee te askan woo dem góor goo dégg ñu ne moo ca dàq fecc boo amee soxla bul ko ko wax booy dénkaane tegg ko kon damay wax ni wusmaan Ba gor si dog bu muy gàcce te du ko wax kër goo tàbbi am suuf siis ta jikko yu ñaaw yépp soxor ak kiñaane gën a gore ak kiñaan jikko yu ñaaw yépp moo ci gën a gore ñoom bala ñoo fàdd ka jëm ci moom ba te ñu daaneele ki ëmb ci yéeneem ndax yéene yett la yéene jigéen juy si ak jëkkëram wanaasu la ci biiram lay dellu yéene kilifa gu dëng aw tund la dese yéeg daanu ca xurwa tund wa jatt ko mokk ko déggal yéene taalu bi ak sëriñam te sëriñ ba matub sëriñ jooje yéene néeg la borom a cay fanaan kilifa yit ñetti kilifa am kilifa gu yor ji koy gaynde ak kilifa gu yor ji koy golo ak kilifa goo xam ne dafa yor ji koy mbëtt kilifa gu yor ji koy mbëtt soo jiitoo mu yaa ngi lekk saay soccet nga topp ginnaaw mu ni yaa ngi joggi saab geen nga dend ak moom muy dang maa def moroom kooku ki ko miin ak ki ko munta ba dong la mën a nekkal kilifa gu yor ji koy golof day ànd ak yow bu siinee njariñ dëgmal la mu gàttandu ko ni ko cas ni ko dërëx leen lekk mbaa mu dencal ko boppam kilifa gu yor ji koy gaynde nag mooy gëggën kilifa gu yor ji koy gaynde kooku day ànd ak yow bu séenee soxla dëgmal la mu gàttandu ko tëgg kom ji ñu gumm moo tax ñetti àndandoo ngi yit yu mata moyu àndandoo bu yor jikkoy golo àndandoo bu yor jikkoy max àndandoo bu yor koy takk ndeer àndandoo bu yor jikkoy max day ànd ak yow booy senc mu ànd ak yow waaye loo teg fi suuf tarug weñ walaw xeer da koy maxe ba naaj tàngee mu rocc ko bala fa boobu àndandoo mat naa muyu àndandoo bi ci des koy gola lay yor boo àndee moom ba tàbbi sa biirub tool mu tànn garab ba ca sut yéeg ca sikkim la soo wàccee ba ñibbi mu ànd ak gàdd ga tàbbi ci sa biirub tool loo yaakaaran mu gàggal ko àndandoo bi ci des jikkoy takk ndeer lay yor booy xuloo foo taxaw mu taxaw boo xàccee mu mépp buñ la yenoo ba ca kaw mu xaar la fa suuf buñ la daanee lee ngeen ànd xalangu àndandoo bu yër koy takk ndeer kon ñett lu ci waay am récc ko wutalu ko boppam dañ ko ko wutal jabar ak xarit akub sëriñ lu ci waay am récc ko wutalu ko boppam dañ ko ko wutal kon njëlbeenu kër yow mi boroom kër gi yaa war a jëkk a jub jubbanti sa njaboot teg leen ci yoonu lislaam di ko jëfe ñu di ko gis nga fexe ba ñi nga jaboot ruus la te bañ laa ragal sa njël di doy te nga bañ koo tiitaroo foo jaram koo yónni boo dee góor ba sa jabar xam ko nga amum dund amum kodd amum niir jël baat ricc ricc digg ëtt bi fas yéenee dëkkeeb gent ku nar a dëkk ak yow loo xam ba ko ci ku fase sab aawa génne sab taaw nag barke nuyu na la waaye fa yow ko ku am benn jabar sàggane ko dinga nga xaaraani sam nawle te di nga yóbbante sam fóot góor nag boo xisee am ñett taaw ñu bokkul ndey suñu màggee sag tumuranke jeex te it ay ayloo ak fégal dañoo wuute aaw ak jëkk sëy yëpp du benn ay ayloo da ngay aaya tey boo lëggee sa moroom aaya ay ayloo fégal da am màgg dangay ngay cëppeelu ci kër nekk fay sëy jur fa doom ju góor mu màgg takku tekki dem takk jabar indi aw sa yaay ca waañ wa aw sa yaay ca póot ma aw sa yaay ca mbale ma xaw sa yaay ci coono jigéen yépp sa mbàndum yaay di fees te sa yaay du xam fu ñuy roote sa yére yaay di set te sa yaay du xam fu ñuy fóote bu waxtu lekk jotee sa yaay day seet këll ba ko jubu wubbi yor ca loxo su boobaa sa yaay day muur yor kurusam di julli rek su boobaa fégal na ku fégal dootoo aaye jigéen it balaa sii na séddale yett door a dem ab taaram na ko bàyyi rakkam ju jigéen ji jaayu te jërëgul waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram alalam na ko bàyyi càmmiñam mu yore ko boppam waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram ab juddoom na ko bàyyi ak mu di ko damoo waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram bu demee bay sëyit nar a jub lu ko waay di digal te di ko nëbb jëkkëram na lànk ndax ku sa gor a gërëmul sa jëkkër gërëmu la keneen ku la gërëm daa sob moo tax ma ne yekkale yekkale ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génn léegi sëfoor si ñoo yekkaleente ay kiliyaan jeeg ji téye seen loxo yekkale ma ne ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génne seen loxo ma wax ni jigéen it buy sëy te nar a jub lu ko waaye di digal te di ko ñëpp nëbb jëkkëram na lànk bu sa jëkkër fiiree bul bëree góor gu ko doyul bu sab goro siisee bala ngaa yekk leen a rekk boo dëkkee kum nay lu mu am danga koy baag moom te loo am jox ko ca ndax ànd bu nekk tabla la am ku yegg gaare te it am doom ju ndaw ju rafet ci bët neex na ci xolub jeex waaye doom ju màggat te tekkee ko gën ndax kër baay gétt la waaye kenn ku nekk la sa yarat ngay naan ndax damay wax ni bu doon koo bokkal mu yéene la jàmm kon gi taxuk suuna du xam sangal te ku say bokk xam fa nga jëm doo àgg te bu ñu xamul fa nga jëmit xas la ndax jën li ko indi marché bañ di ko séddoo jën ni moom ak ko yóbbe jën lañu def meeb sànni ko biir géej jën séen ko teg ko jàmm lokk ko ñu xëcc ko ci weñ indi ko ca tefes ga gàll ko ci oto indi ko marché dagg ko séddoo te géej kenn képp fa fekk baax keneen ku mu yaa fekki tefes tefes kenn fa fekk baax muy jinkoob caxalaan yi dong ñëw fa fekk baax ci tefes ga keneen ku mu yaa fekki tefes waaye tefes fekkiwu la tayit damay wax ni ñett bu ñu tàbbee ci kër nañu leen weer ab rambaaj su tàbbee ci kër nañu ko weer ay suñu ko fóotee tàbbal ko ci kër nañu ko weer soxla boo ko mënta faj daaneel ko ci kanamu ñu nga bokkal gàcce weer ko kenn ku ne yëkkati def ca mu faju ñett yooyu dañ leen di weer kon ngénte daa am ngénteew am génn teen am ngénte borom da koy man lu jiitu bis ba ku ñëw mu ngénte ku ñëwul mu ngénte ngeen teew say bokk ak say am ji jàmm dañuy teew kenn ku ne yëkkati jox la nga door a mën a ngénte bu ñu teewul dara du dox ngeen teew génn téen doo defal kenn lu ko jaral jóg te doo mënal sa bopp dara soo génnee ci gàcce nga yem génn téen kon dëkk boo yendu ñulug bu nekk nga yër ko xorom doo nga ko mën fekkee déwén muy jàmm dëkk yaramu neen di wërum réew te ndaje moo dem ñuy wax sab taar ca toppandoo naaru góor juum te damay wax ni tàbbi cim réew am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom réew ma lay gën tàbbi ci dëkk am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom dëkk ba lay gën tàbbi ci kër am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom kër ga lay gën dinaa di waxit ni rajo ku ñu ko teg ci sab loxo tax ngay rajaxu di nga yàgg a tàbbi fu ñu la safoowul te ngam fa yitte te la tax nga soof nit ñi yaa ko wax ca rajo ba te yëgoo ko kon damay wax toujours ni leen nit bu lay xas bala nga koo tontu seetal ba xam kii lay xas yow bëgg ngaa mel ni moomam déet soo bëggut a mel ni moom lu mu la wax ci moom la nekk waaye nekkul ci yow ndax seytaane lu ñu ko woyee lu ne ñàkk mu ñu ko fa dugal bari na saay saay bu am fayda tàbbi ci biir kër def ak caay caay ba ñu yëw ko ca pénc ma te ñàkk fayda ak koy yóbbee moo tax yëfus bu bëgg tiraanga bu dee nootoo kërug sëriñam da cay diig ndax tiraanga ji mu fekk ci kër sëriñ bi ak sutura si ci lay ñuy ne kër gi ba far fi toog sëriñ bi seet jigéen di koy tawat de kër takkal ko ubbi néeg dugal ko ca bu mu ràpp sëriñ bi solal la ma neen liir bu juddu sëriñ bi ngénte lu ñu yalwaan dënd koy lal tooki ngeganaay jaaxandeen yaa ngi ci barke te loo yàgg-yàgg ci kër sëriñ bi amagoo sa këru bopp te sa doom du am kër baay kon ñaq jariñu fa ko nit ñi teg néewu fa fa ko yàlla teg la ne ñaq jariñu bu doon nekk ci tool kër tool sëriñ si waa ger waa gari doo ngay ñaq jariñu toolu sëriñ boo dem di nga fekk ay doomam gemb teyit àddina lu doy dikku fi doy loo la nga ma fi ñëw baax ñëw na fi waaye baax ku àndu ñu di la xas dikkul dund ñëw na fi waaye dund gu àndul ak dee dikkul kenn ku nekk bi nga juddoo àndaale sa ruu la la àddina kalaameeg dee moo tax may wax nit ku nekk ñetti raxasoo ngi yoo bu ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja ma ni nit ki li ko sos li ci bët mën a gis fu mu la laal nga ko nit ki bi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñetti raxasu ki bi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñetti raxasu yooyu ku ci sam xel dugul doo toog fenn naa maay waaja kon yàkkamtee ami mool jarul di dugg ci njeexum ba say bokk di la moolu ndax pirig yoram ba ci mbedd ay mbir a ko fa ba ki kenn du ko laajte mu ŋàbb ab xaalisam di ko joxe ngir bëgg a jël ndamal ndaje ma ab tab aw làmmiñam lay jëkk a xam fu mu ko war a tàbbal ab tab day xam fa muy tàbbal ab tànkam door a xam fa muy tàbbal alalam ab tab damay xam fa muy tàbbal alalam ndax ku wóppul ñàkkoo xamagoo say bañ kon bu waaye dikkee ni la dama laa bëgg bala ngaa ànd ak moom ca la mu wax seetal ba xam ña mu àndalan daaw nu mu leen def ndax yetu noon du réer borom da koy denc saa yu ko talee jëli ko ngembal saay saay du tax borom da koy yolomal saa yu ko talee fiddali tuba yu ko la bañ saa ko yéen saa yoo ko séenee sa taatu xarit mayul xarit ba lam wax ba jot te sab der rafetu fa kon ñi baax suñ yeboo juboo ñi bon leen bëgg tey doomu aadama joo gis muy dem loo yàgg-yàgg ci àddina di nga yàgg ci biir suuf lu ko ëpp kon juboo ba juboo jeex juboo si jëf ju baax a ci gën keneen koo mën a juboo bañ dugal la ci bàmmeel kooka day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fuñ la tëral mu tëdd fa moo tax doomi soxna yépp soxnañ leen te dëgg ba noppi kon ku ñu sox war ngaa fetal te jamono yegg na foo xam ni bari na ku ñuy sukkal di la raamal te ku la sëkk kaw suuf nungu nag njublang nungu na waane waaye péncum yàlla dëgg a fay dàgg ko fa amul doo bojj fa yaar yàqoo bu ñett waatee lakk bu ak bokk yàqoo wala xarit yàqu su jigéen waatee lakk mbaa bu xaalis waatee lakk mbaa bu ab tool waatee lakk ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekkee na ko alal yokkulu bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekkee na ko ay war yokkulu ànd waaye fu ànd yàqooy war fekkee na ko jigéen yàqu lislaam waaye fu lislaam yàqoo jigéen fekke na ko te damay wax ni àddina lenn képp la fi doomi aadama yi dul xëccoon leneen lu mu boo ca dugalee sa loxo ñu jàpp ca asamaan te dañ caa jotewul moo mu dina sant seen dina la fay du gaaw koo xam ne boo amee ci soxla duut la may jàmm bu soxlaam fajow nga gëj koo gis ngërëm bu dee bàyyi koo ci poos boo jeexalee ñu won la ginnaaw ànd bu ko joxe sosee boo tëyee sa loxo mu yàqu bala nga ànd ak nit na nga wisit jikko ja ba mu doy la nga door a ànd ak moom ndax ndaje mu waaye jëm sañul yóbbu taar waaye taar amul wëllëre taar soo woppee mu dellu ginnaaw ab taar soo meree mu dellu ginnaaw soo xiifee mu dellu ginnaaw am ñaawaay nag loo gën a gudd fan muy yokku kon taar amul wëllëre te doomu aadama yaare ci dul màggat jikkoo aku fit jikkoo ku fit doo nga dul màggat ci nit foo fekk mag muy defuk caay caay jàngu ko da koy tari ba mu ko mokkalee yàgg na mag du jànguk caay caay te ñett dañuy daggu dugg waaye kenn ku new xel ngay génne buur bu ñu fulli buur fal ko buy tàbbi ci kër gi ñu fullee woon morom mi ndaag lay duggee ànd ak i sarxoolee ki tàccu ak i dënd waaye bu yeggee fa ñu fullee woon morom ma aw xel lay génne ndax après joo dégg biraawo nga koy dàq te dina ko jot jigéen ñu liggéey kër boppam ba mu yegg ngay góor romb ko sa col gu jekk mu joxe ñeent ak transit na wékk naa la saak buum fanaan mu jëkk mi ndaag ngay duggee waaye cëy bu ngeen sàppentee aw xel ngay génne jinaxi julli ju ànd ak jabaram buy tàbbi ci sébbu gerte bu lay yi ndaag lay duggee waaye su mbooyaa ba ñu bàcc ko ba tur des ca nag aw xel lay génne te damay wax su leen nit ki bala ngaa xam jikkoom na la teglu war nga mën ko ba noppi lànk ni tekk di ko seet bu la alal boolee moom dinga ko gëj a gis mbaa boo ko nuyoo xam ko ci may waxit ni ñeent duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat jeeg bu siis xol bu sedd xel mu dal duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat boo ko jëndee weer bu jëkk wi dala naan lu ma am ak loo am booleel lekk weer wa ca tegu mi la loo am lekkal mayit lu ma am lekk weer wa ca tegu mi la loo am ak lu ma am booleel jox ma ma lekk ba ca tegu muñ ne luñ la dénkal ak loo am ak lu ma am booleel jox ma ma lekk ba ca tegu buy fanaan si ci kër gi danaa tàyyi lumière yi néeg bu nekk mu jafal cab lumière ni bee néeg lu ca neen a génn bee néeg lu ca neen a génn ba néeg yépp daj mu door ni gafuñ ca ëtt ba boo xëyee suba la ngaa génn kër gi da nga dajale mbooloo ñu bokk ko puus mu faroxal ba ñëpp yëg ko mu door a teddi juróomi kilomètres yi mu daw ñu wubbituñum kaw ma su boobaa ma ngay tas kër ga muy xëyee jigéen ñeenti sikk góor ñeenti sikk laam ñeenti sikki góor mooy soxor ñeenti sikki sikki jigéen soxor siis bañ gan bëgg ne la bu mu ëpp mooy sikkas jigéen ñeenti sikki góor mooy xaste ak dóor ak fiir ba mu ëpp ak ragal njël sikki góor yépp mu ngi laxasu ci ragal sikki jigéen yépp mu ngi laxas ci ki reewande jigéen bu reewee lu ñu ko jiñ moomu moo tax dama ne jigéen su ëmbee rek war naa xam doom ji mu ëmb bu juddoo nu muy mel ndax jigéen su ëmbee doom ju baax koñ bu mu nekk ndawal gu ca sotti tamu gisoon ko daañu yekk wàllam yët ko su boobaa doom jàngay ëmërta ci biiru ndeyam waaye jigéen su ëmbee doom ju bon ëtt bu mu dijju dañu ko fay romb këdd ko ci taat li ko jógal taxane mbaa nga rooti biir du pal moo tax sii boo gis ci jigéen tirbinaaram la waaye doom yi ciy juddoo nag suñu màggee ñoo koy siisee ndax barke bu ko bàyyi doon am di ko te di ko joxe ki mu gën a nam ndeyam la koy jox ndax yaar bu xisee dëgmal doomu aadama bi def mënu koo faj wërsëg akum reefo kenn mënu koo faj moo tax ñett kenn du ci jëlee ndam yafalu màggat faj ko reep suuxat mboob kenn du ci jëlee ndam ma ne gaañu sëriñub tariyaax la mu jëkk ne tari baax na waaye nag da ko fa ne yaax tariyaax la mu jëkk na tari baax na waaye da ko fa ne yaax ni meng ba yàgg mu ñëw ni jalañ indaale ay laar ak i béjjën ak sunguf su amulub gàpp ci moom daal di fab ab taatam nag ni ko tegg naar yi fab kanamam dëpp ko waa àddina lu ko waay tawat mu ni ci rus lu ko waay wax rek mu ni maa sut ci loolu ndax ak yeexal booy sa takkee soxna samp ca kër di ca joxe dépasse di ca sol mbubb di waxu dëgg amul ndax kër gi bu fi dépasse fanaanul nga xëy suba teel jarak ni fi jalañ luy tax mu joxe weexal rek loolu la ñuy wax moo tax sëriñ su muus yi taalibe yu muus yi la ñuy meebe yu dof yi soo muusee te amoo dara sëriñ bi dalay teg fi wetam ku ko doy mu yónni la ci soo muusee te amul xaalis day tànn saal yam yi ci gën a neex dugal la ci lu jëkk a sotti ci kër gi mu tànn la ca dàq jox la yow mi muus ta am nga lekk ba regg des wi ñu fab ko jox ko ki muus ta amul dara moo tax jërëjëfe sëriñ bi ñu nekk ci jàmm doo nga koy wax waaye jaaxle ko métit ci yàlla rek te ambulong bu woom kenn du ko tippee ci mbooloo Sénégal nag damay ñetti giir sëriñ fi am tey ma dib sëriñ farsu nga day ma dib sëriñ saa yu jógee tukki saak ba mu ŋàbb sungu fakki reen doo nga cey ne moom bu sañeen kër gu mu dëkk jëkk a dugg jaaxle la fay fekk fi mu tàndale woon mu jub kookaay doon ab ma mooy dee dem ca ña ko la ko dalan ca ña mu dal kenn ku nekk ñu la dikkal saa sëriñ ba ñëw na fi tey ma dib sëriñ force nga dib sëriñ ab sëriñ ma koy jur force nga dib sëriñ ab sëriñ ña koy jur waaye bi mu xàmmee nag la jub la mujj a jëfe nag ndigalal waajur ya ni meng bi bàyyi bi dee nag ñu jëli ko indi siis bi ñu tegan baayam ñu teg ko ci ñu yaakaaran baayam kenn ku ne dégg koy loxo ni ginnaaw sa baay jóge na fi yaa fi sës moom lislaam ba baayam yoroon da koy sàppi nguur dañ ko forcé waaye sëriñ su yàggee nag feralum ginaar lañ koy def ginaar buy feral cuuj ya gën a am fayda lay woŋ ñu fekk cuuj ya ñàkk fayda kaas ma beru bàyyi seen ndey ab force nga dib sëriñ it buy ñàkki taalibe taalibe yi gën a am fayda ñooy dem ba xam jikkoom bàyyi ko wax ko yaa ñàkk fayda ñu wàcc ko ab sëriñ jàng lay jëkke teg ca xam-xam boole ca xàmmee la yàlla y digle mu di ko digle te di ko def la yàlla y tere mu di ko tere taba ko ah, xam nga jamono daa dikkan mag ñi fekk fi taara ba ko fi jamono dikkaat borom barke yi dàq ko ñoo di taataar ma ne borom barke yaa ngi sóobu ci jigéen ñi di ci takk lu leen soob te kenn waxu ci dara dëgg bu daanoo ci pénc nag may mag ñi xëy ci suba di ko wër ba jant bi so te feeñul borom barke joom dañu ko ragal teyit ci lay sukkal di la raamal bu wëlbatikoo di la sikk la ko doon tere yaa ko def ba mu yem ca kon loo bëgg mucc ci ayam dawal jàmm ja ndax doom su gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du ca àgg kon an la ngoo matale xarit la waaye koo bàyyi mu wéy taggatémbe caaxaan la ko bàyyi garab garab bala tayit boroom kër bu nekk juróomi cër a ngi ci yow cër bu nekk boroom a ngi koy xaar te dina ca jot boroom kër bu ne sa kaa ngi xaar sa ruux te dina ca jot sa bàmmeel a ngi xaar sa jëmm te dina ca jot ay sax a ngi xaar sa yaram te daañu ko lekk say doom a ngi xaar sa desu alal te daañu ca jot ñi am cër ca jeeg ja ngay denc ñu ngi toog di ko xaar daan ca jot alal su màgg ga gaawee juddu ba rafetul alal ju nag ji koy ganu dof lay yor suy ñëw du tàggoo suy dem du tàggoo kolori baa ji koy gumu mboq lay yor bu rafetee dañu koy futti lakk bu ñaawet dañu koy futti lakk jërto ñeewe kenn teyit bàmmeel tuddul bàmmeel baal na nga meloon la tayit nit ki judduma sa moroom juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom ndax maa la ëpp ay at kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp wërsëg kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la gënub juddu kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp pexe kon yàlla taxul juróomi duma sa moroom yooyu am bu la nit ne duma sa morom rek amal soxla ci sa bopp ci boppam la ne te it ki nga ak ci fekk ko mu toog ndax damay wax ni ñeenti mbàkke mbàkke ñoo am ci jamono ci nit ñi foogañu ko koo gis mu ànd moom dong jox la ñaari loxo ci mbedd mbaam ci ni la mbàkke laa sant kooku du Balla Aysa Balla Isi la Balla Aysa da nga fekk mbooloo wër ko du ni kenn mbàkke laa sant yow yooyu fekk mbooloo wër ko yaa naan siiw àgg ca moom ba jox ko ñaari loxo ni ko naam mbàkke waaye moom du ni kenn mbàkke laa sant Balla Aysa ma ni Tuubaa mbàkke la fa baax ba doomu aadama yépp di fa dem nga xam ne sëriñ Tuubaa ko fa indi loola loola balla ma ca ngaye ko fa indi waaye Tuubaa Mbàkke la fa dëng ba sëriñ Abdou bëgg mu génn Tuubaa hmm? balla ya ca ngoye ko fa indi balla aysa balla isi balla ma ca ngay balla ya ngoy kon nag ma ne Sénégal pénc moo fi waxtaane ba jóge fa te tuddoo fa Serigne Touba fu accident tàbbee ñi jiñ la ko te Serigne Touba ku mu raw ci juróom la la rawee buntu néegam buntu kurusam buntu jàkka ja buntu tool ya buntu téere ya fa mu duggee gaal ga ñu ngay ndawalu fa gaal ga téere ndawal gaa nga fe te lislaam ñu koy dundal yàquñu ko ña tant ca àll ba di wut lu ñu dundee ca lislaam lu yëngal lislaam ñooma ak bokk ña koy dundal yàquñu ko ña tàbbi ca biir bokk ga di wut lu ñu dundee ca bokk ga lu yëngal bokk ga ñooma tey nit ku nekk damay wax ni bët dana dugg fu mu amul soxla kenn soxlawu ko fa waaye gis a ko waral la mu gis bëgg koo gis kam ko gisee ci moom it ba sa ñan ko gis waaye gisa ko waral nopp dina dugg fu mu amul soxla kenn soxlawu ko fa waaye dégg ko waral la mu dégg bëgg koo dégg kam ko dégg ci moom it ba sa ñan du dégg waaye dégg ko waral may wax ni bii jamono yit ñetti bopp fi gën a wubbu bopp bi nga xam ni bët ba ca nekk bëggut a séen lu naqari yàlla nopp ba ca sax bëggut a dégg lu naqari yàlla kooka bopp wubbu na ak ci am njaboot gu jigéen ba ñu mat a am jëkkër taamaguñu ko te ngay bañ gàcce kooka bopp mu bu ak jigéen ji tàmm sëy te amatul jëkkër tey bañ a njaaloo kooka bopp mu bu ndax dama ni takkoo ñett la bii takkoo sëriñam dafa faatu mu di as gor di nit ku yiw sëriñam bàyyi kër ak gone yu ndaw yu màggagul mu seet ca biir bokk ga wala gor su ko doy mu takkoog moom mu sàmmale ko alal ja ba kere doom yooyu màgg loolu lay doyee takkoo bii takkoo yàlla dafa dogal muy jigéen joo xam ne jii moom itam daa dafa dem bay mag sëriñam faatu mu tànn as gor dib jullit def ko mu dib takkoo muy ñëw ca kër ga mu di ca jaamu yàlla bii takkoo day jigéen joo ni dafa am alali boppam tabax kërug boppam te koñ ba mu tabaxee kër ga nag mu am fa nag mu faru ndëkkaale bu muy bañ a sori mu wut ab takkoo takkoo bay ñëw ca kër ga mu dëkk ku faram takkoo bay ñëw ca kër ga may waxit it ni takkoo ngoro góodul ak ngoro góodul àggali la jabari takkoo ngoro góodul àggali la moog lekk laaxu soow lu ca yàgg góor gaa moo tax ma ne jabari caga ak yàpp wu fanaan tey jaay lu ca jafe kay jënd a gaawtu njaayum cag ak yàpp wu fanaan muy jaay lu ci jafe kiy jënd a gaawtu ndax damay wax ni juróom la nit àbb du ko able juróom sa jikko sa kawar sa mbokk sa takkandeer sa ruux foo jëm yóbbu ko caga boo gis digal nañu ko la baax bu muy sëyi waaye jikko jaa ko delloo si jikko tuddul jikko jikko la tudd kenn ku nekk sam xel mooy sam ceebo kala yar la mu topp bi jikko ca bu saxee mooy doon sa jikko ñu ni jikko doomu aadama joo gis it say cër mooy sa village waaye sab xol mooy sa chef de village bu xol xisee gàntu foo yebal cër mu gàntu bu xol xisee sawar foo yebal cër mu sawar kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe postu pexe doomu aadama yépp ma nga ca xel ma xel mooy postu pexe nit kenn ku nekk nag sa soxlay bopp nag cin la koy ñuluk say soxlaa koy ñuluk waaye la ko ëmb moo di sam xel moo tax kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe nit ku nekk itam bari na koo dégg mu naa sama yëf caaxaan yóbbu ko te la mu njëkkam caaxaan ko yóbbu la ko dese lay rawale kin la ëmb sam xel nag say soxlaa koy ñuluk waaye sa jikkoo koy xam ba sa sottal ko sa jëf yekk ko signalé ko nit ña ñu teg ci seen bët door a xam li nga nar moo tax jëf boo daagoo ca biir fekk ca réccu da koo saatloo waaye jëf du taaw doo réccu ma ko dolli mag joo dégg su ma dundan ba génn ci la yàndal kon bu nit dundee diir bu néew dem ba yàlla dogal mu yor bi jaaw yor ab dëkk wala mu doon kilifa ci kër dañ naa bu fi jógee diwa fi wóotu fekk na nit ñi dañoo bàyyiwul xel ci ne sëg yoo dem borom bi jaaw ca gën a néew fooy toll yi dund waaye toll na fay dee ku ne bu ma fekke woon yett def yett nag bu yett amee te defoo yett boo fekke woon yett doo def yett koo dégg mu ne su ma dellu woon di gone damay lax si jàngi dëkk ba nga dëkk daara nekk fa nga jur doom ju góor ju ma a dalal jàng te yóbbu woo ko mu jàngi boo doon gone it doo jàngi ku ni bu ma fekk woon jamonoy rasulullah ja moom laay àndal dëkk ba nga dëkk jàkka nekk fa te sa tànk du fa jaar soo fekke woon jamono yonent ba it doo ànd ak moom ku ne sama baay doon dund lu ma sant ma def ko lu ma ma bakko dëkk ba nga dëkk sa taawu baay nekk fay dund te xamalu la dara bu sa doon dund it du la xamal kon ah Ba yow it daan la gërëm ñu ngi gërëmee nit ñu baax ñi ndax dinaa koy wax sama wóolere wu baax. di as gor di sama géer Moussa Ndiaye dooy magay njaay ak cumbe jenn ca ngay ngay ndax musaa am na lu mu réewee te réewul am na lu mu tiitaroo te tiitaruwul waaye la ëpp ci jëfi Moussa moo di nit ku yiw la tayit Ousmane damay wax ni nit alali àddina li muy bari bari doom ju baax a ci gën ndax doom ju baax bu ngeen bokkee dund nga am jàmm soo dee bàyyi ko fi fu mu jullee ñaanal la ci doom ju baax dong la su ko mën a amee mënee su ko am ci kenn tey it Ousmane Ba lu waay tey mu rëcc say waajur dala koo joxul ku sa baay yàpp sa ndey boo màggee kenn du la yab waaye ko sa baay wekk sa yaay boo màggee kenn du la wekk ndax liggéeyu ndey mbind mu ñu yaxal la doomay gontu maat ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko tey damay wax toujours ni ku ñuy ñee ku ne sa ndey toll woon na diggante bu ko yéene jàmm ñeewante nga ko jigéen yàgg nañu ko yërëm ci màggaleegul waaye jigéen yàgg nañu ko ñee ci màggale ndax damay wax ni jigéen bu sëyee ba am fanweeri noppaluwul yaakaarul lu ko noppal war na kañ ko jox mbaam war ko ko joxe góor bu sampee kër ba am juróom fukki at noppaluwul yaakaarul ku ko noppal moom it war na ko ko yar mbaa ko yar war ko ndax am na ñoo xam ne ba ñu ñoo baax waaye gisuñu ku leen gindi am ñoo xam ne saytaane fukk na seeni xel gëlëmal leen ba ka leen bëgg a gindi ñu mere la ndax sàcc bu ëddina alali ëddina lay sàcc waaye sàcc bu jëm àllaaxira am xel lay sàcc ab yéefar ibli iblis a sàccum xelam moo tax ku ko bëgg a gindi mu mereel la xel ma lañu sàcc ndax doomi sàmm ba ñu la jub ay dëkk ma ne ba mu wëtal ñu waxtaani jub ginnaam te fekku ko fa moo tax mu jiital aw nag ba ca àll ba mu tëgg ko saagaw ndey te doom yi nag dig la gën a dégg kon ba ñuy waxtaanee ak njub da ko faa fékkuñ te bala ngaa xam ne danoo dër nga dàq jinax ba mu dañum ñax kenn du ko sikki bu bopp da koo doon ndax sama samay bokk yi dama leen di wax ni leen géwal bëriwu yi wax ay mbokkam la nuru koo wayaan mu teral la waaye koo wañaar mu jéppi la ndax géwal ayul géwal yee bon kii géwal te xamul lu ngéwal ku tax ñu xasub géwal yàgg koy yóbbe ndax ndënd ak tamaak sabar ca la bay la juddoo ba ñu bëggee siiw la ñu dem ngéwal as gor ak ngor ak gore bokkuñ as gor ñaar ñu ko juróo yemub juddu kenn mu la jam sa moroom ki gore yem ci du laal daray kenn waaye daraam du dem ci kenn gor ci am ngor te xam ngor te gore nag mooy dog bu muy gàcce te du ko wax moo tax may wax ni alaaji Abdoul Aziz Sy Malick ca Tiwaawan li mu rawee gaa yi bari na alaaji Abdoul Aziz Sy may li mu rawee gaa yi bari na alaaji Abdoul Aziz moo defagul lii ci réew mi ci biir nit ñi te nit ñi nite ñee ko xam mooy jéggal ku la tooñ dàbb ku lay daw jox ku lay xañ teral koo xamul muñ loo mën a faj wéttali ko ngor di dimbali ay noonam di sant yàlla ci dogalam Alaaji Abdul Asiis Si Alaaji Abdul Asiis Si ñàkk dese ngor mer ànd ak sago tiit dese fit mas laa ko la jikkoom soof alalam mu di ci jëriñ ay bañam alaji Abdoul Aziz Sy kon damay wax ni Sénégal buñ tëggan làmbi xam-xam kenn ku ne jëli sëb sëriñ dij boo mënta faral sëñ Mansoor si bul wàlli ma ni diine ak ngor ak lislaam sëriñ Moustapha si téye na ko ca Fass ga ca Ndakaaru koo soxla fekki ko ca mooy wax ni Cheikh Tidiane si moom astukan commencé moo la gën ndey ku mu sampandool kër moo la gënub aawo ku mu maaseeli doom moo la gënub taaw ku mu bokkalum réew moo la cëppi pexe ku mu siqal lislaam moo la gën a muñ kon mooy gaynde gayndeek tariixa yi ma ne Cheikh Tidiane si moo dugg ci nit ñi génn ci boppam tàbbi ci sëriñ si génn ci boppam téyel boppam boppam ba lu may nit ci boppam mu xam ne da koo neex sama ni Seex Tijaan fii ku ko bëgg tamit dëgg ci yaw ngay góor ngay jigéen ngay ndaw ngay mag ku ne ku ko bëgg tamit dëgg ci yow am nga fayda ndax fulla ñépp a ko am fayda jafe fayda ku ko amul doo am lislaam fayda ku amul doomu mun la jariñu sëb sëriñ ndax ku tukki ci dëkkub jàmbur bëgguñu nga ñibbi war nañoo xam ne fa nga dëkk teg ci nga fa tuxu ba yàgg nga dellu fa nga jóge woon it ñàkk pexe la ko tuxu am la la gënal doo say bagaas ba di ko yenuy delloo teyit ko tuxoo ci dëkk naqariw fa kenn fa nga jëm ba ñu ree dañoo yàkkamti moo tax ma ne mbokk ak nawle ak maas ak kalaas duñu benn mbokk sa kër ndey ak sa kër baay ñëpp say mbokk lañu waaye nawle mooy ki nga bokkal meen ku ko tam tam la ki nga bokkal ci geñu ndey ku ko tam tam la koo koy sa nawle ndax ngàddu gura ku ñu ko jox nga sànniwaat ko kër ndey a tax waaye kër baay taxul bu demee bay sëyi te nar a jub lu ko waay di digal te di ko bu jëkkëram na lànk ndax ku sa goro gërëmul sa jëkkër gërëmul ak keneen ku la gërëm daa sopp moo tax ma ne yekkale yekkale ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génn léegi sëfoor si ñoo yekkalente ay kiliyaan jeeg ji téye seen loxo yekkale ma ne ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génne seen loxo ma wax ni jigéen it buy sëy te nar a jub lu ko waaye di digal te di ko ñëpp nëbb jëkkëram na lànk bu sa jëkkër fiiree bul bëree góor gu ko doyul bu sab goro siisee bala ngaa yekk leen a rekk boo dëkkee kum nay lu mu am danga koy baag moom te loo am jox ko ca ndax ànd bu nekk tabla la am ku yegg gaare te it am doom ju ndaw ju rafet ci bët neex na ci xolub jeer waaye doom ju màggat a tekkee ko gën ndax kër baay gétt la waaye kenn ku nekk la sa yarat ngay naan ndax damay wax ni bu doon koo bokkal mu yéene la jàmm kon gi taxu suuna du xam sangal te ku say bokk xam fa nga jëm doo àgg te bu ñu xamul fa nga jëmit xas la ndax jën di ko indi marché bañ di ko séddoo jën ni moom ak ko yóbbe jën lañu def meep sànni ko biir géej jën seen ko teg ko jàmm lokk ko ñu xëcc ko ci weñ indi ko ca tefes ga gàll ko ci oto indi ko marché dagg ko séedoo te géej kenn képp fa fekk baax keneen ku mu yaa fekki tefes tefes kenn fa fekk baax muy jinkóob caxalaan yi dong ñoo fa fekk baax ci tefes ka keneen ku mu yaa fekki tefes waaye tefes fekki wu la te damay wax ni ñett bu ñu tàbbi ci kër nañu leen weer ab rambaaj su tàbbi ci kër nañu ko weer ay yére suñu ko fóotee tàbbal ko ci kër nañu ko weer soxla boo ko mënta faj daaneel ko ci kanamu ñu nga bokkal gàcce weer ko kenn ku ne yëkkati def ca mu faj ñett yooyu dañ leen di weer kon ngénte daa am ngéntew am génn teen am ngénte borom da koy man lu jiitu bis ba ku ñëw mu ngénte ku ñëwul mu ngénte ngeen teew say bokk ak say am ji jàmm dañuy teew kenn ku ne yëkkati jox la nga door a mën a ngénte bu ñu teewul dara du dox ngeen teew génn teen doo defal kenn lu ko jaral jóg te doo mënal sa bopp dara soo génnee ci gàcce nga yem génn teen kon dëkk boo yendu ñulug bu nekk nga yër ko xorom doo nga ko mën fekkee déwén tamuy jàmm dëkk yaramu neen di wërum réew te ndaje moo dem ñuy wax sa taar ca toppandoo naaru góor juum te it damay wax ni tàbbi cim réew am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom réew ma lay gën tàbbi cib dëkk am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom dëkk ba lay gën tàbbi ci kër am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog borom kër ga lay gën kon dinaa di waxit ni rajo ku ñu ko teg ci sab loxo tax ngay rajaxu di nga yàgg a tàbbi fu ñu la safoowul te nga fa yitte te la tax nga soof nit ñi yaa ko wax ca rajo ba te yëgoo ko kon damay wax toujours ni leen nit bu lay xas bala nga koo tontu seetal ba xam kii lay xas yow ba ngaa mel ni moomam déet soo bëggut a mel ni moom lu mu la wax ci moom la nekk waaye nekkul ci yow ndax saytaane lu ñu ko wooyee lu ne ñàkk mu ñu ko fa dugal bari na saay saay bu am fayda tàbbi ci biir kër def ak caay caay bu ñu yëw ko ca pénc ma te ñàkk fayda ak koy yóbbee moo tax yëfus bu bëgg tiraanga bu dee nootoo kërug sëriñam da cay diig ndax teraanga ji mu fekk ci kër sëriñ bi ak sutura si ci lay ñuy ne kër gi ba far fi toog sëriñ bi seet jigéen ji koy tawat de kër takkal ko ubbi mu néeg dugal ko ca bu mu ràpp sëriñ bi salal la ma neen liir bu judd sëriñ bi ngénte lu ñu yalwaan dënd koy lal toog ngeganaay jaaxaan deen yaa ngi ci barke te loo yàgg-yàgg ci kër sëriñ bi amagoo sa këru bopp te sa doom du am kër bàyyi kon ñaq jariñu fa ko nit ñi teg néewu fa fa ko yàlla teg la ne ñaq jariñu bu doon nekk ci tool kër tool sëriñ si waa geer waa gar doo ngay ñaq jariñu toolu sëriñ boo dem di nga fekk ay doomam gemb te it àddina lu doy dikku fi doy la nga ma fi ñëw baax ñëw na fi waaye baax ku ëndu nag ñu di la xas dikkul dund ñëw na fi waaye dund gu la ak dee dikkul kenn ku nekk bi nga juddoo indaale sa ruu la la àddina kalaameeg dee moo tax may wax nit ku nekk ñetti raxasoo ngi yoo xam ne bu ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja ma nit ki li ko sos li ci bët mën a gis fu mu la laal nga raxas ko nit ki bi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñetti raxas ki bi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñetti raxasu yooyu ku sam xel jógul doo toog fenn naa maay waaja kon yàkkamtee ami mool jarul di dugg ci njeexum ba say bokk di la moolu ndax pirig yoram ba ci mbedd ay mbir ko fa ba ki kenn du ko laajte mu ŋàbb ab xaalisam di ko joxe ngir bëgg a jël ndamal ndaje ma ab tab aw làmmiñam lay jëkk a xam fu mu ko war a tàbbal ab tab day xam fa muy tàbbal ab tànkam door a xam fa muy tàbbal alalam ab tab damay xam fa muy tàbbal alalam ndax ku wóppul ñàkkoo xamagoo say bañ kon bu waaye dikkee ni dama laa bëgg bala ngaa ànd ak moom ca la mu wax seetal ba xam ña mu àndalan daaw nu mu leen def ndax yetu noon du réer borom da koy denc saa yu ko tëlee jëli ko ngembal saay saay du tax borom da koy yolomal saa yu ko talee fiddali tuba yu ku la bañ saa ko yéen saa yoo ko séenee sa taatu xarit moyul xarit ba lam wax ba jot te sab der rafetu ko kon ñi baax suñu yeboo juboo ñu bon leen bëgg tey doomu aadama joo gis muy dem loo yàgg-yàgg ci àddina di nga yàgg ci biir suuf lu ko ëpp kon juboo ba juboo jeex jubóog sa jëf ju baax a ci gën keneen koo mën a jubool bañ dugal la ci bàmmeel kooka day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fuñ la tëral mu tëdd fa moo tax doomi soxna yépp soxnañ leen te dëgg ba noppi kon ku ñu sox war ngaa fital te jamono yàgg na foo xam ni bari na ku ñuy sukkal di la raamal te ku la sëgg kaw suuf nungu nag njublang nungu na waane waaye péncum yàlla dëgg a fay dàgg ko fa amul doo bojj dafa yaar yàqoo bu ñett waatee lakk faak bokk yàqoo wala xarit yàqu su jigéen waatee lakk mbaa bu xaalis waatee lakk mbaa bu ab tool waatee lakk ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yokkuluk bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekke na ko ay war yokkuluk ànd waaye fu ànd yàqooy war fekke na ko jigéen yàqu lislaam waaye fu lislaam yàqoo jigéen fekke na ko te damay wax ni dina lenn képp la fi doomi aadama yi dul xëccoo leneen lu mu boo ca dugalee sa loxo ñu jàpp ca asamaan te dañ caa jotiwul moo xaral mu sant seen la fay du gaaw koo xam ne bu amee ci soxla duut la may jàmm bu soxlaam fajow nga gëj koo gis ngërëm bu dee bàyyi koo ci poos boo jeexalee ñu won la ginnaaw ànd bu ko joxe sosee boo téyee sa loxo mu yàqu bala ngaa ànd ak nit na nga wisit jikko ja ba mu doy la nga door a ànd ak moom ndax ndaje mu waaye jëm sañin yóbbu taar waaye taar amul wëllëre taar soo woppee mu dellu ginnaaw ab taar soo meree mu dellu ginnaaw soo xiifee mu dellu ginnaaw am ñaawaay nag loo gën a gudd fan muy yokk kon taar amul wëllëre te doomu aadama yaare ci dul màggat jikkoo aku fit jikkoo ku fit doo nga dul màggat ci nit foo fekk mag muy defuk caay-caay jàngu ko da koy tari ba mu ko mokkalee yàgg na mag du jànguk caay-caay te ñett dañuy daagu dugg waaye kenn ku neew xel ngay génne buur bu ñu fulli buur fal ko buy tàbbi ci kër gi ñu fullee woon morom mi ndag lay duggee ànd ak i sar xoolee ki tàccu ak i dënd waaye bu yeggee fa ñu fullee woon morom ma aw xel lay génne ndax après joo dégg biraa woo ngi koy dàq te dina ko jot jigéen ju liggéey kër boppam ba mu yegg ngay góor romb ko sa col gu jekk mu joxe ñeent ak transit na wékk naa la saak buum fanaan mu jëkk mi ndax ngay dugge waaye cey bi ngeen sàppentee aw xel ngay génne jinaxi julli ju ànd ak jabaram buy tàbbi ci sébbu gerte bu lay yi ndaag lay dugge waaye su mbooyaa ba ñu bàcc ko ba tur des ca nag aw xel lay génne te damay wax su leen nit ki bala ngaa xam jikkoom na la teglu war nga mën ko ba noppi lànk ni tekk di ko seet bu la alal booleeg moom di ko gëj a gis mbaa boo ko nuyoo xam ko ci may waxit ni ñeent duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat jeeg bu siis xol bu sedd xel mu dal duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat boo ko jëndee weer bu jëkk wi dala naan lu ma am ak loo am booleel lekk weer wa ca tegu mi la loo am lekkal ma lu ma am lekk weer wa ca tegu mi la loo am ak lu ma am boo booleel jox ma ma lekk wa ca mu muñ la luñ la dénkan ak loo am ak lu ma am booleel jox ma ma lekk wa ca tegu buy fanaan si ci kër gi dana tay limiyeer yi néeg bu nekk mu jafal cab limiyeer ni bee néeg lu ca neen a génn bee néeg lu ca neen génn ba néeg yépp daj mu door ne gafuñ ca ëtt ba boo xëyee suba bala ngaa génn kër gi dangay nga dajale mbooloo ñu bokk ko puus mu faraxal ba ñëpp yëg ko mu door a teddi juróomi kilomètres yi mu daw ñu ubbitu ñu kaw su boobaa ma ngay tas kër ga muy xëyee jigéen ñeenti sikki laam it góor ñeenti sikki laam ñeenti góor mooy soxor ñeenti sikki ñeenti sikki jigéen soxor siis bañ gan bëgg gine la bu mu ëpp mooy sikkas jigéen ñeenti sikki góor mooy xaste ak dóor ak fiir ba mu ëpp ak njël sikki góor yëpp mu ngi laxasu ci ragal sikki jigéen yépp mu ngi laxasu ci reewande jigéen bu reewee lu ñu ko jiñ moomu moo tax dama ne jigéen su ëmbee rek war naa xam doom ji mu ëmb bu juddoo muy mel naa jigéen su ëmbee doom ju baax koñ bu mu nekk ndawal gu ca sotti tamu gisoon ko daañu yekk wàllam yët ko su boobaa doom jàng ëmb wërsëg ci biiru ndeyam waaye jigéen su ëmbee doom ju bon ëtt bu mu dijju dañu ko fay romb këdd ko ci taat ni ko jógal taxane mbaa nga rooti biir du pal moo tax si boo gis ci jigéen tirbinaaram la waaye doom yi ciy juddoo nag suñu màggee ñoo koy siisee ndax barke bu ko bàyyi doon am di ko te di ko joxe ki mu gën a nom ndeyam la koy jox ndax yaar bu xisee dëgg mal doomu aadama bi def mënu koo faj wërsëg akum reebo kenn mënu koo faj moo tax ñett kenn du ci jëlee ndam yafalu màggat faj ko repp suuxat mboop kenn du ci jëlee ndam ma ne gaañu sëriñub tar la mu jëkk ne tari baax na waaye nag da ko fa ne yaax la mu jëkk ne tari baax na waaye da ko fa ne yaax ba yàgg mu ñëw ni jalañ indaale ay laar ak i béjjën ak sunguf su amulub gàpp ci moom daal di fab ab taatam nag ni ko tegg naar yi fab kanamam dëpp ko waa àddina lu ko waay tawat mu ndimaa ci rus lu ko waay wax rek mu ni maa sut ci loolu ndax ak weexal boo ca takkee soxna samp ca kër di ca joxe dépasse di ca sol mbubb di waxu dëgg amul ndax kër gi bu fi dépasse fanaanul nga xëy suba teel jarak ne fi jalañ luy tax mu joxe weexal rek loolu la ñuy wax moo tax sëriñ su muus yi taalibe yu muus yi lañuy ñuy ñebe yu dof yi soo muusee te amoo dara sëriñ bi da lay teg fi wetam ku ko doy mu yónni la ci soo muusee te amul xaalis day tànn saal yam yi ci gën a neex dugal la lu jëkk a sotti ci kër gi mu tànn la ca dàq jox la yow mi musta am nga lekk ba rekk des wi ñu fab ko jox ko ki musta amul dara moo tax jërëjëfe sëriñ bi ñu nekk ci jàmm doo nga koy wax waaye jaaxle ko métit ci yàlla rek te ambulance bu woom kenn du ko tippee ci mbooloo Sénégal nag damay ñetti giire sëriñ fi am tey ma sëriñ farsu nga tey ma dib sëriñ saa yu jógee tukki saak ba mu nàbb sungu fakki reen doo nga cey ne moom bu sañeen kër gu mu dëkk jëkk dugub jaaxle la fay fekk fi mu tàndale woon mu jub kookaay doon ab rawaanam mooy dee dem ca ña ko la ko dalan ca ña mu dal kenn ku nekk mu la dikkal saa sëriñ ba ñëw na fi tey ma sëriñ force nga dib sëriñ ab sëriñ ma koy jur force nga dib sëriñ ab sëriñ a koy jur waaye bi mu xàmmee nag la jub la mujj a jëfe nag ndigalal waajur ya ni meng bi bàyyi bi dee nag ñu jëli ko indi siis bi ñu tegan bàyyam ñu teg ko ci ñi yaakaaran bàyyam kenn ku ne dégg koy loxo ni ginnaaw sa bàyyi jóge na fi yaa fi sës moom lislaam ba bàyyi yoroon da koy soppi nguur dañ ko forcé waaye dub sëriñ su yàggee nag feralum ginaar lañ koy def ginaar buy feral tuuj ya a am fayda lay woŋ ñu fekk ci ja ñàkk fayda kaas ma beru bàyyi seen ndey ab sëriñ it force nga dib sëriñ it buy ñàkki taalibe taalibe yi gën a am fayda ñooy dem ba xam jikkoom bàyyi ko wax ko yaa ñàkk fayda ñu wàcc ko ab sëriñ jàng lay jëkke teg ca xam-xam boole ca xàmmee la yàllay digle mu di ko digle te di ko def la yàllay tere mu di ko tere taba ko ah, xam nga jamono daa dikkan mag ñi fekk fi taara ba ko fi jamono dikkaat borom barke yi dàq ko ñoo di taataar ma ne borom barke yaa ngi sóobu ci jigéen ñi di ci takk lu leen soob te kenn waxu ci dara dëgg bu daanoo ci mpénc nag may mag ñi xëy ci suba di ko wër ba jant bi sa te feeñul borom barke juum dañu ko ragal di lay sukkal di la raamal bu wëlbatikoo di la sikk la ko doon tere yaa ko def ba mu yem ca kon loo bëgg mucc ci ayam dawal jàmm ja ndax doom su gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du ca àgg kon an la ngoo matale xarit la waaye koo bàyyi mu wéy taga témbe caaxaan la ko bàyyi garab garab bala tayit boroom kër bu nekk juróomi cër a ngi ci yow cër bu nekk borom a ngi koy xaar te dina ca jot borom kër bu ne sama kaa ngi xaar sa ruux te dina jot sa bàmmeel a ngi xaar sa jëmm te dina ca jot ay sax a ngi xaar sa yaram te daañu ko lekk say doom a ngi xaar sa desu alal te daañu ca jot ñu am cër ca jeeg ja ngay denc ñu ngi toog di ko xaar te daañu ca jot alal su màgg ga gaawee juddu ba rafetul alal ju nag ji koy ganu dof la yor suy ñëw du tàggoo suy dem du tàggoo kolori baa ji koy gumu mboq lay yor bu rafetee dañu koy futti lakk bu ñaawet dañu koy futti lakk jër ta ñeewee kenn te it bàmmeel tuddul bàmmeel baal na meloon la te nit ki judduma sa juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom ndax maa la ëpp ay at kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp xam-xam kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp wërsëg kon yàlla taxul du sa morom ndax maa la gënub juddu kon yàlla taxul du sa morom ndax maa la ëpp pexe kon yàlla taxul juróomi du sa morom yooyu am bu la nit ne du ma sa morom rek amal soxla ci sa bopp ci boppam la ne te it ki nga ak ci fekk ko mu toog ndax damay wax ni ñeenti mbàkke mbàkke ñoo am ci jamono ci nit ñi foogañu ñëw koo gis mu ànd moom dong jox la ñaari loxo ci mbedd mbaam ci ni la mbàkke laa sant kooku du Balla Aysa Balla Isi la Balla ay sa danga fekk mbooloo wër ko du ni kenn mbàkke laa sant yow yooyu fekk mbooloo wër ko yaa naan siiw àgg ca moom ba jox ko ñaari loxo ni ko naam mbàkke waaye moom du ni kenn mbàkke laa sant ay Aysa ma ni Tuubaa mbàkke la fa baax ba doomu aadama yépp di fa dem hmm? nga xam ni sëriñ Tuubaa ko fa indi loola loola balla ma ca ngaye ko fa indi waaye Tuubaa Mbàkke la fa dëng ba sëriñ Abdou laat bëgg mu génn Tuubaa hmm? balla ya ca ko fa indi balla aysa balla isi balla ma ca ngay balla ya kon nag ma ne Sénégal pénc moo fi waxtaane ba jóge fa te tuddoo fa Serigne Touba fa accident tàbbee ñu jiñ la ko te sëriñ Touba ku mu raw ci juróom la la rawee buntu néegam buntu kurusam buntu jàkka ja buntu tool ya buntu téere ya fa mu duggee gaal ga ñu ngay ndawalu fa gaal ga téere ndawal gaa nga fe te lislaam ñu koy dundal yàquñu ko ña tant ca àll ba di wut lu ñu dundee ca lislaam lu yëngal lislaam ñooma ak bokk ña koy dundal yàquñu ko ña tabbi ca biir bokk ga di wut lu ñu dundee ca bokk ga lu yëngal bokk ga ñooma te nit ku nekk damay wax ni bët dana dugg fu mu amul soxla kenn soxlawu ko fa waaye gis a ko war a la mu gis bëgg koo gis kam ko gisee ci moom it bu sa ñan ko gis waaye gisa ko waral nopp dina dugg fu mu amul soxla kenn soxlawu ko fa waaye dégg ko waral la mu dégg bëgg koo dégg kam ko déggee ci moom it bu sa ñan ko dégg waaye dégg ko waral may wax ni bii jamono it ñetti bopp fi gën a wubbu bopp bi nga xam ni bët ba ca nekk bëggut a séen lu naqar yàlla nopp ba ca sax bëggut a dégg lu naqar yàlla kooka bopp wubbu na ak ki am njaboot gu jigéen ba ñu mat a am jëkkër taamaguñu ko te ngay bañ gàcce kooka bopp mu bu ak jigéen ji tàmmub sëy te amatul jëkkër tey bañ a njaaloo kooka bopp mu bu ndax dama ni takkoo ñett la bii takkoo sëriñam dafa faatu mu di as gor di nit ku yiw sëriñam bàyyi kër ak gone yu ndaw yu màggagul mu seet ca biir bokk ga wala gor ko doy mu takkoog moom mu sàmmale ko alal ja ba kere doom yooyu màgg loolu lay doyal takkoo bii takkoo yàlla dafa dogal muy jigéen joo xam ne ji moom itam daa dafa dem bay mag sëriñam faatu mu tànn as gor dib jullit def ko mu dib takkoo muy ñëw ca kër ga mu di ca jaamu yàlla bii takkoo day jigéen joo xam ne dafa am alali boppam tabax kërug boppam te koñ ba mu tabaxee kër ga nag mu am fa nag mu faru ndëkkaale bu muy bañ a sori mu taab takkoo takkoo bay ñëw ca kër ga mu dëkk ku faram takkoo bay ñëw ca kër ga may waxit it ni takkoo ngoro góodul àgg ngoro góorul àggali la jabari takkoo ngoro góodul àggali la moog lekk laaxu soow lu ca yàgg góor gaa moo tax ma ne jabari caga ak yàpp wu fanaan tey jaay lu ca jafe kay jënd a gaawtu njaayum cag ak yàpp wu fanaan wuy jaay lu ci jafe kiy jënd a gaawtu ndax damay wax ni juróom la nit dul àbb du ko àble juróom sa jikko sa kawar sa mbokk sa takk ndeer ruux foo yóbbu saga boo gis digal nañu ko lu baax bu muy sëyi waaye jikko jaa ko delloo si jikko tuddul jikko jikko la tudd kenn ku nekk sam xel mooy sam ceebo kala yar la mu topp bi jikko ca bu saxee mooy doon sa jikko ñu ni jikko doomu aadama joogi ci say cër mooy sa village waaye sab xol mooy sa chef de village bu xol xisee gàntu foo yebal cër mu gànt bu xol xisee sawar foo yebal ci mu sawar kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe postu pexe doomu aadama yépp mu nga ca xel ma xel mooy postu pexem nit kenn ku nekk nag sa soxlay bopp nag cin la koy ñuluk say soxlaa koy ñuluk waaye la ko ëmb moo di sam xel moo tax kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe nit ku nekk itam bari na koo dégg mun naa sama yëf caaxaan yóbbu ko te la mu jëkkam caaxaan a ko yóbbu la ko dese lay rawale ci ëmb sam xel nag say soxlaa koy ñulub waaye sa jikkoo koy xam ba sa yéene sottal ko sa jëf yekk ko signalé ko nit ña ñu teg ci seen bët doo a xam li nga nar moo tax jëf boo daagoo ca biir fekk ca réccu da koo saatloo waaye jëf du taaw loo duutuma ko dolli mag joo dégg su ma dundan ba génn ci la yàndal kon bu nit dundee diir bu néew dem ba yàlla dogal mu yor bi jaaw yor ab dëkk wala mu doon kilifa ci kër dañ naa bu fi jógee diwa fiy wóotu fekk na nit ñi dañoo bàyyiwul xel ci ne sëg yoo dem borom bi jaaw ca gën a néew waaye toll yi dund waaye toll na fay dee ku ne bu ma fekkee woon yett def yett nag bu yett amee te defoo yett boo fekkee woon yett doo def yett koo dégg ma ne su ma dellu woon di gone damay lax si jàngi dëkk ba nga dëkk daara nekk fa nga jur doom ju góor ju ma a dalal jàng te yóbbu woo ko mu jàngi boo doon gone it doo jàngi ku ne bu ma fekk woon jamonoy laay ja moom laay àndal dëkk ba nga dëkk jàkka nekk fa te sa tànk du fa jaar soo fekkee woon jamonoy yonent ba it doo ànd ak moom kone ne bu sama bàyyi doon dund lu ma sant ma def ko lu ma tere ma bakko dëkk ba nga dëkk sa taawu bàyyi nekk fay dund te xamalu la dara bu sa bàyyi doon dund it du la xamal dara kon ah Ousmane Ba yow it daan la gërëm ñu ñuy gërëmee nit ñu baax ñi ndax dinaa koy wax sama wóolere wu baax di as gor di sama géer Moussa njaay dooy magay njaay ak cumbe jenn ca ngay ngay ndax musaa am na lu mu réewee te réewul am na lu mu tiitaroo te tiitaruwul waaye la ëpp ci jëfi Moussa moo di nit ku yiw la tayit Ousmane damay wax ni nit alali àddina li muy bari bari doom ju baax a ci gën ndax doom ju baax bu ngeen bokkee dund nga am jàmm soo dee bàyyi ko fi fu mu jullee ñaanal la ci doom ju baax dong la su ko mën a amee mën ne su ko am ci kenn te it Ousmane Ba lu waay tey mu say waajur dala koo joxul ku sa baay yàpp sa ndey boo màggee kenn du la yàpp waaye ko sa baay wekk sa yaay boo màggee kenn du la wekk ndax liggéeyu nday mbind mu ñu yaxal la doomay gont maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko tey damay wax toujours ni ku ñuy ñee ku ne sa ndey toll woon na diggante bu ko yéene jàmm ñeewante nga ko jigéen yàgg nañu ko yërëm ci màggaleegul waaye jigéen yàgg nañu ko ñee ci màggale ndax damay wax ni jigéen bu sëyee ba am fanweeri noppaluwul yaakaarul lu ko noppal war na kañu ko jox mbaam war ko ko joxe góor bu sampee kër ba am juróom fukki at noppaluwul yaakaarul ku ko noppal moom it war na ko ko yar mbaa ko yar war ko ndax am na ñoo xam ne ba ñu ñoo baax waaye gisuñu ku leen gindi am ñoo xam ne saytaane fëkk na seeni xel gëlëmal leen ba ka leen bëgg a gindi ñu mere la ndax sàcc àddina alali àddina lay sàcc waaye sàcc bu jëm àllaaxira am xel lay sàcc ab yéefar iblis a sàccum xelam moo tax ku ko bëgg a gindi mu mereel la xel ma lañu sàcc ndax doomi sàmm ba ñu la jub ay dëkk ma ne ba mu wëtal ñu waxtaanim jub ginnaam te fekku ko fa moo tax mu jiital aw nag ba ca àll ba mu tëgg ko saagaw ndey te doomi nag dig la gën a dégg kon ba ñuy waxtaani ak njub da ko faa fekkul da bala ngaa xam ne danoo dër nga dàq jinax ba mu dañum ñàkk kenn du ko sikkil bu bopp da koo ndax sama samay bokk yi dama leen di wax ni leen géwal bariwul yi wax ay mbokkam la nuru koo wayaan mu teral la waaye koo wañaar mu jéppi la ndax géwal ay géwal yee bon kii géwal te xamul lu ngéwal ku tax ñu xasub géwal yàgg koy yóbbe ndax ndënd ak tamaak sabar ca la bay la ñu juddoo ba ñu bëggee siiw lañu dem ngéwal as ak ngor ak gore bokkuñ as gor ñaar ñu ko juróo yem juddu kenn mun la jam sa moroom ki gore yem ci du laal daray kenn waaye daraam du dem ci kenn gor ci am ngor te xam ngor te gore nag mooy dog bu muy gàcce te du ko wax moo tax may wax ni alaaji Abdoul Aziz yi Malick ca li mu rawee gaa yi bari na alaaji Abdoul Aziz yi may li mu rawee gaa yi bari na alaaji Abdoul Aziz moo defagul lii ci réew mi ci biir nit ñi te nit ñi nite ñee ko xam mooy jéggal ku la tooñ dàbb ku lay daw jox ku lay xañ teral koo xamul muñ loo mën a faj wéttali ko ngor di dimbali ay noonam di sant yàlla ci dogalam alaaji Abdou Aziz Sy alaaji Abdou Aziz Sy ñàkk dese ngor mer ànd ak sago tiit dese fit nas laa ko la jikkoom soof alalam mu di ci ay bañam alaji abdula ci si kon damay wax ni bu buñ tëggan làmbi xam-xam kenn ku ne jëli sëb sëriñ dij boo mënta farak sëñ Mansoor si bul wàlli ma ni diine ak ngor ak lislaam sëriñ Moustapha si téye na ko ca Fass ga ca Ndakaaru koo soxla fekki ko ca mooy wax ni Cheikh Tidiane si moom astukan commencé moo la gën ndey ku mu kër moo la gënub aawo ku mu maaseeli doom moo la gënub taaw ku mu bokkalum réew moo la cëppi pexe ku mu siqal lislaam moo la gën a muñ kon mooy gaynde gayndeek tariixa yi ma ne Cheikh Tidiane si moo dugg ci nit ñi génn ci boppam tàbbi ci sëriñ si génne ci boppam téyel boppam boppam ba lu may nit ci boppam mu xam ne da koo neex tama ni Seex Tijaan fii ku ko bëgg tamay dëgg ci yow ngay góor ngay jigéen ngay ndaw ngay mag ku ne ku ko bëgg tamuy dëgg ci yow am nga fayda ndax ful la ñépp a ko am fayda jafe fayda ko ku ko amul doo am lislaam fayda ku amul doomu mun la jariñu sëb sëriñ ndax ku tukki ci dëkkub jaambur bëgguñu nga ñibbi war na ñoo xam ne fa nga dëkk tekki nga fa tuxu ba yàgg nga dellu fa nga jóge woon it ñàkk pexe la ku tuxu am la la gënal doo taatan say bagage ba di ko yenuy delloo teyit ku tuxoo ci dëkk naqariw fa kenn fa nga jëm ba ñu ree dañoo yàkkamti moo tax ma ne mbokk ak nawle ak maas ak kalaas duñu benn mbokk sa kër ndey ak sa kër baay ñëpp say mbokk lañu waaye nawle mooy ki nga bokkal meen ku ko tam tam la ki nga bokkal ci geñug ndey ku ko tam tam la koo koy sa nawle ndax ŋàddu gura ku ñu ko jox nga sànniwaat ko kër ndey a tax waaye kër baay taxul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 su ko ci dencul woon du ko ci fekk moo it fàtte na ni ëllëg daañu ko fotan tàbbal ko ci armeel lu ma ci dencul du ko ca fekk kon armuwaal armeel ki takk ndaw soosu nag reere yàpp wata boor lal ab der julli ca gee suñu ko fanaan ak jabari donoor ñu noo du fajar ca jàkk sab tànk jaaru ko boo dee mbërit doo waadal kon àddina dadim néeg ku ci tab bi tëju di tijji ñu gis la wala ñu ubbi ko yër la jamono nag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 moo tax duutuma ko dolli doo dégg mag di ko wax suma ma ba génn ci la yàndal may wax ni jamono bu nekk fukk ñaar la yàlla séddale jamono ba lu yàqu ca jamono ba ñooma lu ca defaru ñooma fukk yooyu ak ñaar mooy borom wërsëg bu bari pexe akubri sens gërmi gu màndi nguur sàmbali ngeer borom barke ki am licence ki am sens ki yàlla may xaas ndaanaan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 waaye du dëgg ndax lëg ah tey ba mu bàyyi ko ca lëmm tong ci kaw aloom fab sàll wi gor ko ci doomu aloom doom ba barasti ko daanu fa suuf lëg yem ca far ko lekk paxam cey daa jubul cey dimbali lëg taxu ko woon a jóg kon bu lëg lekkee aloom na ko gërëmee yàlla moom mi jëmbat aloom kon sabab baa ca jaaree ñu waxit ni dinaa faral di dégg doomu aadama yi ñuy faral di wax ni géwél bu reppee ci xare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 ak borom wërsëgu soxor ak boroom xam-xam bu gëmul yàlla ak ci noppi te ak ci mer denc kilifa ak aada gu ne juróom-benn yooyu a ngi lay xeex soo ko xamee soo ko xamul wante juróom-benn yooyu buñ la songee te fekku la ak juróom buñ la songee daan la waaye juróom ngay am buñ la songee duñ la mënal dara danga nga leen di ëpp wërsëg ëpp leen i pexe ëpp leenu muñ di def lu ñu mun faj te di ko teg ci yoon.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 kon itam ah, ah, ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ñi gën boroomi million bu ko xaj màttee jërul ngay yedd xaj ba ñaari xaj lañu su baaxoon wéttaliku ba xaj du ko màtt mbaam xotti mu ko jot doon na këla jur waaye melo kala yar ndax dañ ne mag mat naa ba ci dëkk man ma ni leen xanaa bu dee mag mu jub bu dee mag mu dëng jikkooy safara lay yor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 ndax lu jigéen def bañ yóbbu ko tribunal moo góor ko ànd kon buñ nee jigéen sa soppal tabul wóolu waroon nañu góor yi soppal tabul wóolu ma wax si ak ah, mer nag soo meree fajo koy wax boo noppee am gàcce ndax wax nga toj ci woo xam ne mënatoo koo dabu te barmool bu nekk mën naa rëcc nga dab ko delloo si yeew ba mu des bu làmmiñ bu ko si rëcc tëneetoo ca dara boo meree fajo ko jëf fa saasa mu sippale ko gaynde fàdd la